salaamaaleykum mbokk internet yi ñu safoo di ñu seetaan saa su nekk fii euh, dakarnet point com comme ni ma ko defee saa su nekk di wër artistes yi ñu nekk fii Sénégal te def ci dalal koo xam ne mun naa ne sax Sénégal yëpp euh, miin nañ ko kooku mooy laaj Dieyna dañ euh, ñu leen nuyu di maa ngi leen di fay bu baax di fay ñëpp ñu ñu déglu di fay ñu ma xam ñi ma xamul ñëpp di kontaan aussi si. si seen invitation bi. kooku mooy euh, laaj kon lu ñu def lu dugg ci sujet bi euh, Dieyna li leen euh, njëkk a laaj mooy lan moo andi moo laaj Dieyna. laaj Dieyna la petite la femme la dame c'était juste benn fling si Dieyna bi. moo tax mu andi aussi tamit laaj Dieyna li lay gis say clip te extraordinaire. day nice ñu ngi naan noonu ah, ban façon de travail nga àndal ba muy mel noonu. waa xam nga bon on travaille en équipe tout d'abord soo bëggee dara soo koy def tu le fait avec amour donc on partage les idées ñu xool li nga xamante ni moo war a mën a neex public bi et puis mooy tendance bi ñu def ko. en fait je fais un peu du tout xam nga je chante. lépp lépp laay wéy donc xaw ma ban style sax laa wax a jël ba léegi tànnooguma ban style laay def euh, je fais du tout. waaw <laughs> ah, moom nee na day rap aussi tamit day def lépp ñu laaj ah, lu ñu la bëggoon xam mooy le vrai Dieyna kan mooy Dieyna. bon Dieyna doomu Sénégal la je suis congolaise aussi sama côté yaay. Bon, je suis née au Congo, j'ai Sénégal, j'ai vu ma vie au Sénégal. Donc, euh, je suis partagée, comme on dit. kañ nga Sénégal aussi. ma nekkee xale laa Sénégal d'ailleurs boo déggee sama olof sax bi xam ne dafa xaw a des loolu moo lay woon ne juddoo fii. comme nga ne juddoo fii tamit ñëw ah, fii Sénégal di way. en même temps nga nekk ci rythme bi quoi ku la gis sax du xam ne kii congolaise la wala sénégalaise la. ku ne xam na ne Congo moom c'est la musique c'est la danse comme les Américains donc dama ko tàmmoon depuis tout petite maa ngi doon woy au Congo déjà donc bi ma ñëwee fii aussi ba gis ay groupe rappeur di leen defar ay chœur tout ça. donc euh, c'est c'était facile parce que boobu vraiment musique euh, mën naa wax ne yomb na yombul. juste que ne boo bëggee dara rek day yomb ci yow tu vois c'est ça. Ah, ah, nga dugg ci musique. amour amour bëgg musique rek waaye naka la ma dikkee j'adore la musique j'écoute que la musique du man même bu ma jàngee école dama temps ma daan jàngi école sax damay jël samay leçon di ko def ay mélodie pour cœur ko donc euh, mun naa wax que juste dans la peau parce que peut-être Congo am na ay parents yu wéy xam nga mais Sénégal non du mun naa wax ne c'est amour. moom nee na ah, amour bu euh, ñu laajaat mooy que ni jéem naa ñu gis sa clip macha allah ngay xam nga sol lu nice xam nga clip affaire yooyu noonu ñu laaj loolu fii la wala fële la. question de fling la rek xam nga sa dret moom. <laughs> su raxee congolais moom da ngay bëgg a sañse da ngay bëgg lu rafet parce que ñëpp a xam ne congolais moom xiif la ñu demee tu vois da lu rafet euh, loolu mooy indi lu ñu def ci clip bi dañ koy xeet parce que on envie de plaire on envie de montrer au monde que vraiment li ñu def bëgg nañ ko gëm nañ ko te il faut ça waaye mooy être coquette vraiment c'est très belle xam nga mooy mooy bi daal. bi de dara de temps yaay léegi coow li est ce pare nga pour dëkk loolu. xam nga man sama esprit de départ mooy déjà xam nga nee naa la je fais un peu du tout loolu déjà mooy xooluma kenn lu muy def tu comprends je me cherche donc aw ma temps di gëstu kii lu muy def wala lu xew wala lii. je parle de concurrence xooluma kenn. man boo ma waxoon tey sax reprendre ma tel way duma ko parcuriser parce que xaw ma ko danaa apprécier romb je pas de concurrence. am nga di ko may dara affaire yooyu noonu loolu am na fi <laughs> ah, xam nga pour dëkk yooyu mooy il faut prête dans tout donc psychologiquement on est prête et puis c'est avec plaisir parce que loolu fliñ la jéem def dara nga imi ko loolu dafay nice dafay neex de mon côté moom man j'avance war nañ ci weewu bay sax na yow marié nga ñu lay laaj yow nan nga mën a boole ah, ah, comme ni musique fiiree maanaam metti nan nga mën a boole ñaari yow. <laughs> est-ce que loolu sama secret. <laughs> ci wax dara tamit ah mais ku xam musique xam ne musique dafa fiir musique moom koo xam-xam ne boo ci xasee ba nekk dañ ciy nekk laaj mooy que ni est yow nan nga mën a boole ñaari yëpp. dëgër fit benn du ci am fay avec la Dieyna rien n'est impossible gëm sa bopp rek gëm li ngay def gëm lépp loo song lañ koy wax <laughs> lu ñu song daan ko yaa ngi bëgg a dégg olof de ah ñu <laughs> bëgg a dégg olof quoi mais aussi tamit ah, lu lay lu lay laajaat mooy tey ji Sénégal est-ce pare nga pour def fi ay concert ay soirée bien sûr d'ailleurs on est prête parce que dañu nekkoon di liggéey di préparer album xam nga pour mën na ubbi loolu yëpp mais vu album bi pare na liggéey bi taxaw na vraiment on est prête pour faire des concerts des tournées fu ñu waay woo ñu wuy ko tu vois CD baa ngi nii album moo nekk aussi album baa ngi nii am na clé aussi donc vingt titres waaye yaa du tout côté amour côté social lépp am na donc euh, yaa ju malax aussi bien vrai que aayuma trop ci malax <laughs> mais dinañ jéem a jox gars yi lu ñu bëgg puisque musique Sénégal moom il faut nga def tuuti malax donc euh, yaa ju malax aussi je pense que gars dinañ apprécier vraiment gis ñu loolu yomb ñu ngi laaj ko dundee ak nan nga ko préparé en tant que jigéen. waaw moi de côté moom mun naa wax ne c'est facile parce yàlla moo xam nga soo bëggee dara doo yëg coono bi donc les idées sont là tu vois yàlla mel bi ñu développé vite fait ñu def dara donc man sax dama xeboon vingt titres yi gaa yëg ko bee tiit nga a ne da nga ko xeeb waaw loo xam ne mun nañu sax même bu même bu amee bariwul bu léegi nga yow da ko xeeb vingt titres. je te jure dama xeeboon vingt titres yi si jàpp di wax non c'est pas comme ça foog nga wàññi xam nga foog nga wàññi parce que prochaine fois ma ne bon prochaine fois defaat noonu rek y a pas de waaye ci mémoire bi parce que comme ni ma la ko waxee album bi c'est la vie de tous les jours te chaque jour am na lu xew tu vois bu dee bu dee xaritoo dañ koy développé xam nga donc euh, yaakee sax dans l'album yaakee des thèmes des trucs yoo xamante ni vraiment ku ne mën a ci gis boppam et puis dama amoon embarras de choix pour titre yi donc donc euh, il woon au moins minimum minimum bi mu nekk vingt titres bi pour xam nga ñi ni xam kan mooy laajee naa comme nga ni léegi mu génn bu paree pare bu def tournée xam nga bu nekk international comme fi nga dëkk ba ci Congo yëpp daal ba xam pare je suis prête ci yàlla daal laa laa kii <laughs> mais de mon côté moom on est prête vraiment équipe bi yëpp pare nañu album bi rek moo ñu teewoon waaw on a eu des propositions mais comme euh, je voulais pas faire de reprise xam nga il fallait que ñu toog xaar ba album bi pare nga xam ne suñu yëfi bopp la ñuy loolu moo taxoon retard bi tuuti mais incha allah si tout va bien et que jàmm am feebar bi bàyyi nit ñi xam nga showbiz bi reprendre ak mouvement bu baax dinañ gis Dieyna sur scène si ay tournée ci lépp incha allah ñu bàyyi xel rek. d' accord Dieyna nañu bàyyi ko xel parce que moom pare na après Covid bi dal ci kaw gars yi mais li lay ah. dal ci kaw gars <laughs> si gars rek faaw nga dal ci kaw faa nga dal seen kaw de fii Sénégal affaire bi yombul de fii yombul de gars yi dal seen kaw de yow yow man damaa gis ni daal yow ñeme woo gars yi quoi parce que lu ñu wax nga ni pare nga dal seen kaw. non non du question dérégal gaa dérégal gars juste que ni jéenaa dafa am concept bu muy demee ci concept boobu laay demee tu vois je ne pour faire euh, des wala xam nga di créer lu amul waaw man duma rappeur duma kii tu <laughs> nañ job job bi ku nekk na demee ay idée waam tu vois man en fait j'ai plus besoin des amis que des des vraiment des rivales tu comprends un peu waaw nañu bokk seen yi nañu partager puisque ñoo bokk lu ñu bëgg donc nañ ko yaatal rek tu vois mais pas de concurrence dinaa bu defee dara nice naa nga approuvé keneen ak keneen même chose lan ngeen mën a conseiller waa showbiz bi mooy nañ xoolaat bu baax seen thème waa thème yi ñuy bindi parfois di sóoraale xale yi aussi di di xool aussi kenn thème bi mooy resté parce que bu dee pour ambiance bi c'est juste un moment mais quand le message est fort loolu ça reste à vie day dund tu comprends donc surtout ça nañ ci bàyyi xel parce que bari na ñi ma ci xaw a critiquer bien vrai que ne euh, duma mën a wax seeni tur xam nga am nañ talent et tout mais thème bi mooy des parce que dañuy basé wu surtout si si affaire d' ambiance te ambiance pour quelque temps la xam bërki démb maa gis affaire Sonko bi bu mu amee déjà ma gis euh, si TikTok bi ñëpp def ay du ma sànni xeer du ma lakk kër jàmbur ta vu donc le message est fort parce que dafa ñëwaat vu ce qui s'est passé du nii nii dañuy capturer loolu di teg loolu moo lay woon keneen booy woy da woy lu am sens. fii nekk Sénégal am na ñoo xam ne dañuy woy te seen thème yi. non dañuy rek la ñuy demee. <laughs> yaa jaaxal gars di wax ni gars yi dañuy bi noonu lañ koy def. Eh, waxuma gars yi yëpp de dama ne ñenn ci ñoom. waaw nañ bàyyi xel ci seen thème xam nga vraiment ñu sooraale xale yi xool aussi des thèmes yoo xam ne day resté nga boo xoolee par exemple comme euh, Youssou Ndour musique am chaque fois nga koy déglu dafay mel ni lu bees la sa parle d'aujourd'hui parce que message bi day fort te message la boo xamante ni day dund tu comprends donc il faut ça dans la musique on a besoin de ça gis nga Michael Jackson son boobu bi mu kii ci Covid bi ñëpp a ko reprendre c'était depuis quand parce que thème bi dafa ñëwaat mu tombé ak li il faut juste ñuy bàyyi xel ne damay wax lii pour lii tu vois même si ça passe pas aujourd'hui un jour viendra que yaay doon it bi daal déggee say wax daal mooy que ni laa jeenaa nee na euh, yenn musiciens yi Sénégal yu ci bari amul ay thèmes dañuy jël ak wax yaa ko wax n'est-ce <laughs> bëgg jaxas ak sénégalais yi conseil la entre nous les artistes waa nañ ci bàyyi xel c'est important thème dafa am solo ci musique ko waxee nee ah dafa am solo ci biir mais bi ma laajee tey ah, laajee naa ci ban label la nekk lan nga ñuy wax. LSD ngi foofu mooy kër gi fii la ko jaar képp ko bëgg lu baax fii lay jaar tu vois ñu xam kan mooy lay jaay amour bi mu am ci musique ak soutien bi muy apporté artiste yi donc laajee naa daal mu ngi fii kër gi la maison c'est ici fi nga nekk nii. fiñ la dalal nii foofu nga nekk. mais xam tamit euh, lan mooy sa projet fii Sénégal. projet mooy euh, xam nga nii nii xam kan mooy laajee naa xam musique bi et puis ko bu baax parce dafa laaj ñu déglu ko xel tu vois donc euh, on est daal di xool sénégalais naka lañ koy dundee. Mm-hmm. aussi laajee naa ñu gis nga génne album tuddee ko gëm sa bopp ñu ne laaj. pourquoi nga tuddee ko gëm sa bopp. waa gëm sa bopp euh, mooy kon ni ma la ko waxee léegi ni genre lépp looy def su àndut takk amul rek doo doo ci nekk à l'aise quoi donc soo gëmee li ngay def à la base dalay neex gëm sa bopp ci lépp looy def loolu moo waral ma tuddee album bi gëm sa bopp parce que plusieurs couleurs donc dañ ko dañ ko dañ ko jël. bien vrai que ne xamuñu sax après lan lañ ci am ni fit daal moom ci dugal te xam naa ne boo gëmul sa bopp doo ci dugg ñu gis ah, gëm sa bopp sa album bi mu nekk vingt ñooy laaj thème yooyu noonu yan thème nga ci wax loo xam ne tey bu na xam ne ah, ko dégg na xam ne laa jeenaa mi la wax thème yi thème yi bari na thème yi bari na xam nga c'est des thèmes de tous les jours côté amour côté social xam nga su ma ko bëggee détaillé dafay xaw a jël temps bon ku jënd album bi di nga xam parce que tout dernièrement am na clip bu génn clip gëm sa bopp boo déglu clip bi nga déglu parole bu baax di nga mën a comprendre un peu parce que faut laa la gëm sa bopp si mélange gëm sa bopp si sa liggéey gëm sa bopp en tant que femme gëm sa bopp en tant que nga war a mën a rivaliser ak jigéen xam nga y tout tout dedans sauf qu'il faut garder la tête haute nga sa bopp xam li ngay def def càkkas càkkas moom sa bopp <laughs> waaw kon yaakaar naa ne liñ amoon ci temps yaakaar naa ni jeex na dañu def loolu jox laa jay naa kàddu gi euh, mu wax dañeen moom bon je remercie tout le monde particulièrement waa studio bi parce que mooy sama deuxième famille di remercier Karim sama ménagère di leen remercier yi ñi ngeen xam ne da ngeen wu di rafetlu aussi seen émission bi di ñaan yàlla mu jëm ci kanam bon su ma bëggee lim tur yi damay jum te bëgguma kenn mere ma donc dañ koy close fii nuyu naa ñëpp. mbokk internet dakarnet point com tey lii la leen andiloon yaakaar naa ne aussi du ko mu nekk ndaanaan nekk artiste nga waxee ne mu génne album avec vingt titres kon nag gars yi nañ ko xaar te xam kat vingt titres yooyu noonu nekk ne ku caaxaan moo koy génne. waaw dañu leen di wax ëllëg ak keneen incha allah ñu dajeeg moom di suma équipe ma àndal ci mel ni Dieye ñëpp daal di leen wax beneen yoon ak beneen daanaan incha